de par le passé li ñu mos di gis moy daral so ci ñëw ay goor nga ci fekk waye tay fekk ngeen fi ay jigen té ay jigen ñu am jom parce que ay jigen ñuy dajalé chaque semaine kenn ku né 2000 francs mois bi nga dajalé 8000 10 mois nga am 80 000 francs koku déjà yow yaangi def un effort important ci lolu nak le président de la république son excellence Macky Sall gis mu ne ren at at bu jafé la at metti la coronavirus la dajé té kenn ku ne connaît pas. loolu noonu a am ay jafe ne ko wund motax mu jël luy 3 milliards Mon ministère de l'élevage en relation avec les organisations professionnelles en relation avec les autorités administratives surtout les préfets des départements na ngeen taxawu jeunes yi na ngeen taxawu jigéen ñi ngir jàppale len ñu mëna dem jëndi ay xar ngir population sénégalaise

soo xoolee même année daaw ñu ngi woon ci cent vingt quatre mille soo defee différence bi tey tey luy tolloog cinquante six mille yokku na ci ci même période te dese nañ au minimum juróom-benn fan yeneen yoo xam ni ñu ngi ci kanam kon li ñu ñaan yàlla rek mooy tendance bi nga xam ne am na nii actuellement ñu ñaan yàlla tendance bi mën a maintenir wu pour que consommateur Sénégal yi ak fu mu mën di doon ak bourse bu mu mën di am mu mën a fay mën meuna jënd xar convenablement mën ko jëriñu fi may ñëwaat moo ci jigéen yi jigéen yi lutax président Macky Sall gën leena tek teg def ne yeena gëna vulnérable ci couche yi yeena gëna jambaré waye parfois da ngeen di lot lol. ci seen biir kër yi mu ne suñu leen jappalé ngeen man am yenn autonomie c'est sûr et certain kër gi yëpp ci jëriñu parce que yeen lu ngeen am ci kër gi ngeen koy delloo ndaw yi parce que ndaw yi moy bokk na ci politique ay principal politique am boo xam ne ne loolu def ne bépp ministre bépp directeur général activité booy def boole woo ci politique de jeunesse politique de femme wax dëgg fa yàlla sa bopp ngay doxal waaye doxalatoo ko kon loolu nag su ñu gisee ay jigéen ñu takk ñu mel ni ñi mënuñ lu sant leen waaye wane leen aussi en exemple pour que ëllëg ci biir nit ñi xam ne mbir mi du mbiru góor kese du mbiru euh, mag kese du mbiru waaye mbiru góor góor la jigéen la mag la ak ndaw kon ñëpp ko bokk yem